motion wu <laughs> nag xam naa ne da ngeen maa namm mais temps yi damaa xaw busy parce que tu as beaucoup de l'argent wala parce que il est mignon tey rek bala maa wax dara dara dara dara dara. il faut ngeen am 1500 vies ma soo ko wax bu amul vie en plus tamit euh, kër yi la arrêté fépp sax mon ami kii kan la ba pare kër yi laa bëgg moo ko yëg ci kaw kaw avant ma wax xool baat doon bi di woote lii damaa bëgg kër yi ok lii laa bëgg waaw très bien lii laa bëgg kër na yëg waaw parce que tey damaa énervant walla tey moom je suis énervant léegi dee leen kii ma téye sama foldu jéem a xool leneen lu may def mhm. parce que ku ñàkkoon moo commencé am na ko parce que wallaahi damaa commencé am xaalis en plus damaa commencé mignon samay leen dafa lii laa soxla très def ak li kii def diwul problème tey laa leen si ñamal tuuti surprise laa leen defar tey ngeen xam ne tey Pawlish nii li tax tuddee et tout say four boo yoonoo sono ci ma damaa intelligent kaay wax li tax ma intelligent tey wax leen ko na kër waaw lii laa bëgg na kër yi

tey ne leen wax loo xam ne tey il faut ngeen il faut ngeen jooy kii Pape Dóor la kii woote moom xanaa duma bàyyi putain dama bàyyi moo tax xew loo ko jënd jënd ko xew wala xew loo ko jënd jënd ko moo tax waxi dof moo ko bàyyi loo wala nga jël intention naan policier mag nga bàyyi yooyu yaa yaa bu dee góor bu dee góor nga yaa na nga gaañu na nga mën mais waaw kii ku muy léegi nag dama wax waxi dof li mu amee njariñ xam nga ni lii

ñu nekk plateau ay TFM dégg naa ni may xasa ki di wax waxi manqué te ñoom ñoo mag kii léegi ñoom léegi ñu gaañu ko parce que yàlla sama xarit la chaque fois chaque jour may ñaanal yàlla naan yàlla la gaaw rey yàlla bu la Macky Sall may xaay da nga koy ñaanal ko Macky la da nga koy ñaanal yàlla foo jub yàlla fi yàlla jublu trop day kontaan di nuyu xaritam or bu xat man lu tax lu tax xolof xolof doy na parce que la Ibrahima Xalilullaay nuy Seydunaa Muhammad mooy gën gi mbindéef ay borom Tuuba ndax ndax ndax suñu borom moo ne ñoom ñoo mànkoo ku ci Omar bul Xataab Jibril moo doon de la Oman Jésus ne yàlla Pawlish dafa nekk Sénégal kat di bëgg réew il faut nga il faut nga may ko doole moo tax ma alalu yàlla laa ku mën a rey yàlla lay rey ku mën par il par il est sympa ba pare damaa généreux ba pare damaa commencé humble lu waral loolu parce que il est mignon c'est de yàlla samay lépp dama commencé xam kii bàjjalo na kii woote ñii ñaanal yàlla ngay woote putain c'était casse la galan ah. bah oui 18 léegi damay xool euh, ñi ma sopp ah, ak ñi bëgg Pawlish ak ñi yaakaar Pawlish damaa bëgg abon mi gën waa lii lii neex na ma lii gën di yéeg tey damay def direct tuuti benn dix minutes parce que dama commencé bu xaaj après ma eggali sama kër minuit dafay nekk rendez-vous Pawlish en live en live bi damay def en tey def en live direct en live ba pare en live bi dafa am gagnant gagnant bi mooy boo ñàkkee liggéey dama lay boole ñoo xam da lay jël pour liggéey gagnant bi loolu lay doon ku ñàkk liggéey dama lay dimbali ku ñàkk liggéey ba woowee ci numéro bi dinaa bàyyi benn numéro tak ngeen xool ku ñàkk liggéey ba woowee barke alxuraanu karim semblaak ma dimbali la nga liggéey ci liggéey boo xam ne day am discipline yaru ba pare da ngay humble da ngay corté da ngay set moo tax euh, suñ borom yàlla des fois moo tax Macky Sall il faut nga jàpp ci dafa lu may jàll message Macky xam naa doom ji bu message Amadou moom sama directeur da ko ci eh, di nuyu tamit sama xarit boo gisee maa ngi lay ma gis naa sa message maa ngi lay nuyu dina fay parce que nee naa yaay sa ménageur li ma wax ci laay waxaat góor gi si dee mooy sama ménagère parce que góor gi il est mignon parce que il est attirant parce que taay dubay nga yor yow suñu borom dalaa bind pare dagg xale bi parce que sa taay gowma taay xam nga taay yan yan taay la taay yu yàgg yu yàgg taay yu yàgg yooyu taay yoo xam ne ñoom taay yu yàgg yi taay yu yàgg yoo xam ne taay yu yonent yu yàgg yoo xam ne yàlla noonu la bindee moo tax ñu woowee la góor gi si jee ku ñu woowee góor gi si jee rek jàpp ni kilifa nga góor gi am na ñoo xam ne naan la booy bi ñu naan grand bi yow dañ la góor gi si jee kon góor gi nga yàlla na yàlla fay góor gi si jee te après góor gi si jee il est mignon voilà. ku ñàkkoon liggéey dinaa la wutal liggéey ci loo xam ne du mat ay cinq minutes te liggéey boo xam ne day discipline doo tux yàmba doo naan sàngara da ci gaal lool fii moo raw ci liggéey boobu suñu borom mën a laa suturaal boo yëgul gaal di nga yër bato bato boo xam ne am kilim matisé non tey ngeen xam ne lépp dëgg la dinaa leen dimbali nag il faut ngeen abonné di gën di yéeg merci kër yi na gën di monte la kër s'il te plaît monte la kër lii laa ko bëggee su ma demee nii sama loxo rek aawoo monte la kër te temps yi damaa commencé dégg parce que wees wees daa wala bu ñàkkoon am na léegi damaa commencé la am mais sama xaalis bi ma jox keroog dama cee dama cee génn asaka parce que loolu su ma ko lekkee wóoru de mën naa gaañu xaalis su dof la waaye dama ci <laughs> Sénégal moo neex waxi dof moom solo fii waxi dof ay ku ma ko bàyyi loolu bu dee jigéen nga yar na sa gaañu bu dee góor nga yar na sa papa gaañu ku ma ko bàyyi loolu la ne ku jëlee tànk bàyyi parce que ni voiture dooxee trois voitures amul kenn di sangu piscine loolu doo ko mësoon am nga xam ne man soo mësaan gis piscine ci piscine ci télé laa ko gisee ci télé télé laa mësoon gis piscine ci ay télé Pikine amul Pikine amul piscine te Pikine laa judd amul piscine mais sant suñu borom sant yàlla piscine ci télé laa koy gisee ci télé euh, ay ay Brioche Dorée léegi maa ngi dugg Brioche Dorée di lekk ndox maan ah suma xifé ba sonn duggu ka rapide ñu indil ma sama lepp ci te baye xel lolu té nak ma leen baye ben message bo xamné ma dimbal leen tuuti pour retour retour papa sama nek xel daaw mo liggéey parce que dama nekkoon ci mbedd mi di génn di tox def di def di genre na léegi ma ko waxé liggéey parce que sama liggéey mi dama ci am xay ti yaa beaucoup teel l'argent voilà fekk ni cœur yi way mo la cœur parce que montre bi ma tak du motul xalé pour nga xamni waxi dafa am nak solo ci rew bi nak la ilaha man la ngay bëggé sama mignon wala sama sympa wala sama waxi daf wala nima commencé yo tay di bay wala sama bañ nima commencé wéx ak sama lay fay lan ngay më bëgge dama bëgge message do ni ngay ma bëgge waxi daf ok <laughs> allez merci yow li nga bi neex na ma ok légui nak dama leen dimbali won leen ce que bu ndaw lo xamni tuti la mo tuddé ko en suivre police en suivre problème wala wala ma tuddee ko fa léegi yéen a xool yéen a message ma tuddee ko Pawlish à travail wala ku ñàkkoon am na wala ma tuddee ko à ka ka bi dama koy bàyyi rek rapide bi léegi mu ñëw incha allah arrêté personne lay tudd léegi nag damay jàllale benn message ci lii lii ko muus dëgg day xam dalay aar dalay dimbali te dalay dalay aidé ci lu bari ki defar lii ki xalaat lii ki impexé lii ah ñëw na pour dimbali waa du wax du ma wax xale yi du ma wax maire du ma wax paa yi damay wax ak président Macky Sall Amadou yaa ngi may seetaan sa papa Macky ak Marème Faye Sall kii indi lii ci réew mi xale yi duggatul ci gaal gi bàyyi nañ gaal gi ku bëgg lépp ci àdduna ku ku la ku bëgg suturaal coow am lii ah soo ci nekkee doo faale gaal di nga am xaalis di nga discipline di nga correct di nga yaru te di nga ëmb di nga xam ah ci lii laa bëgg lii laa bëgg très bien dama bëgg nag ngeen abonné ci lii may wax car rapide priorité boo ci abonné loo bëgg a xam ci car rapide di nga ko di nga ko fa fekk di nga ko fa xam bu dee da ngaa bëgg a liggéey di nga ko fa fekk bu dee da ngaa bëgg a jooy di nga ko fa fekk bu dee da ngaa bëgg a reetaan te reetaan yi ëpp ay jooy parce que dimbali nañu bari ñoo dugg ci gaal gi yoof soo gisee lébu yëpp bàyyi jën bàyyi bato car rapide di leen dimbali léegi dama leen dimbali à suivre tuuti incha allah bientôt Pawlish maa ngi coupé nag tey en direct en live dama leen ñamal tuuti non non damay coupé nag non non arrêté fay sax damaa bëgg a sangu piscine parce que il est temps y a pas du temps ma jël kenn allez vas-y xaa ma jël kenn allez vas-y dafa mel ni amul connexion connexion bariwul de ma dimbali jël quatre personnes laay jël wala ñaar non bàyyi ma jël benn parce que non parce que je suis fatigué voilà fexe ngeen ba mën a play dëkk bi jël leen kaay leen kaay leen kaay leen allo allo allo chéri ça va ça va tranquille yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax a baax am nga mag bu góor waaw dama lay poser question ah. waaw ok question bu gaaw dégg nga question rapide. waaw. mu mu liggéey wala mu dugg ci gaal wala moo la gën wala mu dugg ci gaal bu la gën bi xanaa. alhamdulilah yow yow da ngaa intelligent. xam hmm. nga mag bu góor. waaw am naa kay. dinaa ko dimbali tuuti mu liggéey. Hmm. waaw. ok am problème. lii lii ma yor quartier bi ma yor. waaw ah. pour Mali Tamba ah. Burkina Faso Guinée Bissau mm. Djidda Marca <laughs> Algérie mm. Gabon. waaw ah. Bénin Libye. Côte d'Ivoire New York Mali France surtout Paris Belgique. Mm. lii mën naa lii yow sama sama gina nekk Pauline ne bientôt ah. incha allah dinaa dinaa def benn affaire boo xam ne dinaa bàyyi numéro bi ah. numéro bi dinaa fi bàyyi incha allah ci kanam a kanam dinaa ko fi bàyyi numéro bii après wootee commencé am waxtaan commencé am dama koy def naa yow nag yal na yàlla defal jàmm dégg nga. mais mun naa am sa numéro. nii nii nii nii nii nii nii nii su sama téléphone bi day toj. awaay mag si suuf. ci suuf. Mhm. merci chef yi maa koy awaay ci suuf maa na koy maa koy awaay dégg ko wax de. pas souci chef yi wala. ok maa xaar. ok. merci. léegi nag ah léegi léegi damay dagg dama bu bu jëlaat keneen parce que je suis Allô Allô ouais. ça va chérie. <laughs> ça va. comment vous allez. bien et toi. ça tranquille. ouais ça va calme. on est que? Euh, France. Moi? Oui, France? France. waay kay Je vais nga parler. <laughs> on est à la Ligue. on est là Ligue. On mën la poser question hein? mun mun ça sama pas sama eh affaire plaisir pas que je chérie. d'accord Aïssa. allez vas-y maman. <laughs> Aïssa. Paulus, là, Paulus, téléphone Paulus, Paulus, allô maman. maman ça va. allo Pawlish. yaay booy na nga naka Sénégal. Sénégal a ngi nii mi ngi mi ngi nii mi ngi nii di métti rek yaay. arrête de faire genre Pawlish. arrête de faire arrête de faire connerie maman. wala Pawlish wala. wala. yaay. yaay. yaay. ndeysaan yaay mun naa la mun naa la poser question yaay bi fee. waaw poser. yaa xale yi dugg ci gaal gi ah. waaw. am wala wala nga wut fi liggéey Sénégal liggéey boo xam ne mën na laa dimbali. waaw. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg waa. allo. Ngoroon sa doom ba ngay conseillé mu dugg ci gaal nga wut liggéey. sa doom ba ngay conseillé mu dugg ci gaal nga wut liggéey Sénégal. liggéey Sénégal moo gën a gaañ moom baaxul waaw. liggéey Sénégal dina léegi nag dafa am dafa am. nag dafa am benn kilifa bu bu ubbi entreprise entreprise boo xam ne du ah. entreprise bu ndaw. Uh-huh. pour dimbali jeunes jeunes jeunes yi pour dimbali nit ñi. jeune bi si bi waaw. waaw léegi nag société bi day dimbali nit ñi ci lu bari bari. mi ngi tudd Carap yi mi ngi tudd gan. mi ngi tudd car rapide. non dégg nga bu baax. ngi tudd car rapide car rapide la tudd car rapide. car rapide. waaw car rapide la tudd waaw car rapide la tudd day day day di jàppale jeunes yu bari bari. ah baax na moom Sénégal ku fa jàppale moom baax na moo gën ñuy dem. kii nag day ñëw pour dimbali jeunes yi dimbali jeune bi li muy am suñu borom may na ko mais day dimbali dafa gis lu ko metti ci réew mi xëy dugg ci gaal gi te léegi dugg géej gi dafa mer moment bi géej gi xam nga man lébu la danaan du ma dox géej gi mer xam naa ko géej gi instant bi dafa xar ku dugg ci géej gi di nga gaañu li gën a yomb ci àddina muy liggéey bi ma leen di bëgg a dimbali di leen ko wax incha allah bientôt wala ci dana woon ay message yu doy waar te message yi ku fa jaar di nga am liggéey

léegi nag damay dagg kii bi ah dama koy dagg dama koy dagg ba ba guddi incha allah à live Pawlish guddi à live incha allah guddi dama koy dagg ba guddi à live ah allez ciao porte-toi bien ciao ciao bisous